mbëbëtoon organiser rassemblement pacifique euh, à la place de l'obélisque place de la nation Nous donne ben rassemblement pacifique tribune du peuple comme nous ñu ko woowee citoyens yëpp ñu mën dajal d'ajalé foofu wax sen xalaat ci mbir moomule ba pare ñaax nguur pour que mu leeral mbir yi voilà que justice mu def li pour que mbir yi mu leer ñi ñu ci cité ñëpp que justice en toute autonomie mu def liggéey bi ci war ndax euh, li teyal suñu xel moy gis ngeen mbir mi bi mu jibee euh, président de la république ci euh, korité bi ci bisu julli ci ci bërëbu kay bi ay kaddu yu mu ci jibal jëm ci sama rak ak yoy alors que président wu sénégalais yépp la dafa wara a tëddee njaaxaanaay bu dee yenn sénégalais yu sàcc béy wala xar wala sàcc kuddu tay ñu ngi rëbës voilà euh, amul Ben sénégalais bi wara nek au-dessus de la justice kep ku ñu cité ci mbir yu mel nonu dañu japp ni ñun en tant que citoyen euh, président dafa wara a tëddee njaaxaanaayam justice li mo wara mu def ko ci gis nañu aussi ministre de la justice kaddu yu mu ci jibal nga xamanteni quand même en tant que ministre de la justice kaddu yooyu noonu euh, teyoon na xel torop ci mbirum korité googu et puis ñu gis li ci jib yeb ñun citoyen yi dañu japp ni yoyu nonu yeb du yi nga xamante ni dina dalal suñu xel ci mbir moomu ñu jàpp ni liggéey bu ëpp solo mooy mu am benn justice bi nga xamante ni euh, kenn du ko digal dara waaye mu jël ay responsabilités mu def li ci war ndax Sénégal am na justice bi nga xamante ni nit ñi fa nekk xarañ nañu waaye institution bi gis nañ ni léeg day sooxe ndax pouvoir bi da ciy teg loxo donc rassemblement boobu ñu bëggoon def c'était juste pour ñaax autorité yi pour que mbir mi mu leer. et que bépp contrat bi nga xamante ni signé nañ ko ci mbir mi te doonut contrat bi nga xamante ni day dem dans le sens des intérêts du Sénégal et du peuple sénégalais que ñu renégocier waat ko ba mbirum pétrole bi lépp lu ci jëm buñ ko exploiter mu doon li nga xamante ni citoyens yi ñoom lay jëriñ waaye du doon li nga xamante ni day dem ci poche ay nit donc loolu waraloon ñu bëbatoon euh, mobilisation boobu waaye comme ni ngeen ko gisee préfet mu tere ko alors que nous avons fait plusieurs jours avant euh, bind nañu lettre d'information bi préfet et que ñu mettre à sa disposition pour enquête administrative yi waaye gis nañu euh, mbir ni mu euh, ñun bi ñu la ci lañ ko dégg ci yi yi ñoo rencontre bi suñu rassemblement pacifique bi préfet daf daf ko téré té lolu du doxalin bi nga xamanténi ni nañu mom la autorité bu melni mom wara doxal ndax ñun ñoko bind bataxal ñun ñoy les organisateurs bu dé jël na décision bu mel nonu ñun la ko wara adresser ci euh, et à temps et à temps surtout parce que bisu manifestation bi ci 9h30 du matin ñun si la ñuy soga jot lettre boobu voilà en tant que plateforme citoyenne ñu japp nak ni euh, loi au Sénégal may nañu nous euh, informer parce que dañ régime déclaration autorité bi euh, du moment où gis nañu euh, nous biñ ci jëm cadre rassemblement pacifique et que autorité responsabilités pour que euh, mu indi sécurité bu doy voilà donc mo ñi ñan ci pouvoir bi que mais ñi nekkoon ci terrain bi keroog gis nañu sénégalais yi surtout jeunes yi ni ñu génnee malgré dispositif policier bu graw bi nga xamante ni man musuma ko woon gis ci Sénégal Nous avons ñu teg ci place de l'obélisque ak li wër mais gis nañu citoyens yi jeunes yi surtout étaient déterminés à ce que ñu ñëw keroog place de l'obélisque pour que mu am rassemblement pacifique boobu mais gis ngeen ni mu demee euh, policiers yi fa nekkoon képp ku ñëw ñu jàpp la dëgg la ñun ñu ñi nga xamante ni ñun ñooy njiiti euh, ñëwoon nañu ci bërëb ba euh, ñu interpellé ñu waaye loolu découragé wuñu benn yoon et que encore une fois keroog man gis naa Sénégalais yi ni ñu génnee boo defee tour booru Gueule Tapée face ba ay koloban ak yooyu nga gis jeunes yi ci quartier yi ñu bëggoon ñëw ci rencontre boobu mais malheureusement mënuñu woon yegg si parce que parce que police moo fa nekkoon ñu def li ñu defoon rek ay réew ci réew mi lañu ñu bokk ay citoyen lañu am nañu droit wu def rassemblement euh, yoon li mu laaj ñun def nañ ko rassemblement bi le 21 la depuis le 17 la ñu déposé lettre ci préfet boobu ba tey dégluwuñu ñu woon ba tey il a fallu que hier ñu jibal benn lettre bi ñu adressé préfet pour ñaxtu loolu pour que tey jii nii euh, ci suba si ñu woo kenn ci signataire yi pour que ñu def enquête administrative yi donc def nañ ko ñun jàpp nañ ni inshallah suñu rassemblement pacifique bi dinañ ko amal vendredi euh, allée du centenaire ci ci rond point bi comme niñu ko niñu ko annoncé inshallah. luñ ci mëna wax moy déjà imam c'est vrai imam Kanté bokku na ci personnalité individuelle yi nga xamanteni ni ñëw nañ bokk ci euh, plateforme bi mo am liggéey bu am solo bi ñu def contribution ci liggéey bi tey dafa décider ni euh, day quitter plateforme bi dañ koy souhaiter bon vent et euh, que ñun suñu liggéey day oui, la dynamique elle continue et que nous nous concentrons, Inch'Allah, incha rassemblement au vendredi bi suba euh, le 21 Inch'Allah, à 15 h ñepp gis nañu plateforme bi bi mu qui ba tay ci li mu ne la au contraire sax bo xolé ñi ci gëna ñi ci gëna wax la plupart yana mar a marre la on est de la société civile maintenant ci question yu melni quand même dañ ci am position bu tranchée pour défendre les intérêts des Sénégalais donc loolu bu arrangé wul nguur mu japp ni ñun opposition lañ ñun amuñ ci problème mais ñepp xam nañ ni Y mar mouvement citoyen la ak yenen ak yenen mouvement yi fa nek bu fekkente ni aussi préfet euh, day violer la loi euh, di téré ay citoyens sénégalais que ñu un rassemblement pacifique ak sax ni muy doxalé di xaar rassemblement bi di di di euh, euh, arrêté interdire et que sax information interdiction ñukoy pratique yu mel nga dañu fekk ni dañ na Sénégal que que plateforme citoyenne bu mel mu japp ni droit wu def manifestation pacifique pacifiques, que mu maintenir ce mot d'ordre pour que mu dem mu amal manifestation comme ni ma ko waxee bu dé lolu dañ ni politisation la ñun jappuñ ko dañ japp ni juste que ay citoyens la ñu déterminer ñu nekk ci plateforme ñu japp ni loi bi may nañu à ce que ñu rassembler wu li ñu war yépp ñun en tant que citoyen def nañ ko vis-à-vis de l'autorité et qu'il est de la responsabilité du préfet euh, de veiller à ce que nous encadrer ko pour que nous am ci anam yu mu donc euh, voilà ñun amuñu problème par rapport à cette ligne là parce que c'est une ligne citoyenne et que dañuy continuer di ci wëy inshallah bép cadeau nous bi ñuy divertir ñun duñu ci duñu duñu ci taxaw duñu taxaw ci benn cadeau bi nga dinañu divertir dañuy wëyel rek suñu suñu combat inshallah rassemblement inshallah ci allée du centenaire yi deuxième boulevard bi euh, je pense rue 25. Euh, tribune du peuple lay citoyen ñi nga ni ñu ngi surtout gis nañu développement yu am depuis ci autorisée de la présidence conseiller en communication du président Alioune Sall ñëpp gis nañ ko fi bi mbir mi éclaté mu taxaw ne fi amul virement bu euh, Timis Corporation ñëw ci compte bancaire euh, Agritrans et que gis nañu quand même aveu euh, LHKC, Hadj Kassé bi virement amna et que oui mais consultance la dans le domaine agriculture donc c'est ce le citoyen quand même un élément de plus bi nga que qui li Alioune pour euh, une voix forte de la présidente de la République nous na contredire lolo, et que mu indi nous bi mu wax les sénégalais yépp ñu ko donc dinañu dajé euh, ci allée du centenaire pour amal suñu rassemblement citoyen et pacifique bu soobee yalla non duñ ko téré <laughs> on estime que duñ ko téré que quand même le préfet bind nañ ko ci lettre bi que du commettre erreur ou quand même. Euh, Euh, privé à des vouloir privé à des citoyens ce droit à un rassemblement pacifique et que euh, ñu ngi koy yaakaar ñu ngi koy déglu inshallah lepp lu ci jibé rek inshallah dinañ ci dinañ ci addu soobee yalla